xeexuñu xuloowuñu waaw buntu kër gi la ñuy waaj a dajji. xàmmeetuñu ku ne kër kër Ousmane Sonko la ñuy dajji nii ñu ngi dajji buntu kër Ousmane Sonko euh, mu doon phénomène bu doy waar situation bu. Monsieur Diallo xeer yi moo tax.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 def leen nii wóoru digg bi wóorul de.